mbokki xarit yi ñu leen di jaajëfal ñi nga xam ne ñooy seetaan li nga xam ne moo di Equivox TV tey nag dañoo ñëw ci premier numéro bi nga xam ni moom moo lañ jagleel li nga xam ne moo di question sociale question sociale nag soo ko déggee dafay laal rek lépp li nga xam ni dafay ñeel li nga xam ne moo di dundinu doomu aadama tey nag cancer la ñuy waxtaanee cancer nag bëri na forme lool mais tey nag dañoo ñëw fi nga xam ne moo di Ligue sénégalaise contre le cancer fekk si fi ki nga xam ne moo di docteur Fatma Guenoune ngir ñu waxtaanee lépp lu nga xam ne dafa jëm ci cancer jurukaay bi wala bi nga xam ni dafay jàpp ween bi tey nag ñu ngi toog ak docteur docteur ñu lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay soxna Fatima di remercier euh, euh, TV. d'accord docteur tey nag dañoo gis ay chiffres yoo xam ni dafa xaw a daw yaram ndaxte gis nañu Covid def na fi at tey jii nii. mais ñu gis ni tamit cancer bi yàgg na fi lool mais ci at 2019 2020 ñu gis ni presque ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan ci jëm ci cancer war na toll lu ëpp 7000 mun nga dëggal chiffre yooyu. waaw loolu lee euh, naa ko dëggal parce que ñu ngi ci 7937 nouveaux cas pratiquement mille nouveaux cas euh, 8000 nouveaux décès par an ci cancer ci 11317 euh, cas de cancer par an. donc loolu le moo nekk euh, chiffre réel la bi nga xam ne ne Globocan 2020 moo ko joxe ci Sénégal donc te ci cancer yooyu soo leen gisee Euh, dafa am cancer yi nga xam ne ne ñoom ñooy raw gàddu gi muy canceru bunt butu tunjurukaay teg ci wu ween teg ci wu res mooy troisième cancer ci Sénégal euh, teg ci euh, canceru prostate bi nga xam ne ne góor dong lay dal Euh, cinquième cancer bi di canceru estomac te chiffre yooyu le nag mooy euh, cancer yu jigéen yi ñaari cancer yi ñoo raw gàddu te ñooy gën a faagaagal jigéen yi. Mhm. Euh, d'accord léegi nag dañuy ñëw ci traitement bi parce que gisoon nañu ne traitement bi doonoon na loo xam ne dafa cher. tey jii nii ministère de la santé et de l'action sociale ab mun nañ ne ministre bi sax ci boppam ci seen campagne yooyu ngeen di def ñu dubbee ko octobre rose waxoon na ni gratuité chimiothérapie bi. gratuité boobu fan la toll. waaw boobu boobule c'est effectif euh, donc euh, dam lay damay dellu gannaaw tuuti ci historique gu euh, la tax gratuité boobu am mooy ne en 2018 le 11 mai 2018 président de la république dafa recevoir ligue bi bi mu ñu recevoir ñu waxtaan ak moom ci benn bés bi ñu doon def téléthon ñu ne ko su defee un milliard dina tax. chimiothérapie bi yenn yi dina gratuit yenn yi dinañ ko wàññi donc mu nangul ñu ko dugal ci budget wu ministère de la santé un milliard ci un milliard boobule euh, cancer yi nga xam ne ne mooy cancer bunt butitu njurukaay ak cancer wu ween chimiothérapie bi c'est gratuit euh, pour yeneen cancer yi wàññi nañ ko ci 60 pour cent euh, donc mu ñu ngi ko effectué le octobre 2019 donc jigéen ñi faju euh, ñun daf ñu yombal parce que waaye euh, suñu prise en charge li ci ëppoon mooy chimiothérapie bi 80 pour cent de notre prise en charge c'était la euh, le trai la chimiothérapie des malades léegi wàññeeku na naam ba tey am na ay euh, protocole yi nga xam ne ne bokkul ci gratuité bi parce que gratuité bi mooy 15 produits yi nga xam ne ne moom la jigéen ñi daan moom la ñu daan utiliser ci seen faj mais am na euh, lu ñuy wax thérapie de deuxième ligne bokkagul ci gratuité boobu la est-ce que mën nga ñu expliquer un peu ci euh, traitement protocole boobu noonu ngay wax xam nga euh, cancer tout dépend ci fu mu toll faj bi soo ñëwee ci stade bu cancer bi toll nga essayer première ligne yi marché wul da ngay dem def deuxième ligne mooy ne ne li ñu traitement bi ñu jëkk def doxul ci malade boobu foog ñu soppi traitement boobu def beneen traitement bi nga xam ne ne mu euh, boobule dinañ ci am yaakaar ne dina euh, dina faj mais euh, deuxième ligne boobu nag dafa jafeñ parce que am na ay malades yi nga xam ne ne benn produit benn ampoule rek deux cent cinquante six mille la xam nga loolu le sénégalais ku liggéeyul goruloo yettuloo mënoo koo jënd donc loolu mooy problème bi Ah, LISCA nag dañu jéem a jàppale malaat yi. parce que ku ñëw fii ci ligue bi ah, ne da nga ñàkk doole def sa demande ak sa résumé dossier médical parce que foog ma wax askan bi naka la ñuy jëlee malade yi en change da ngay def sa résumé dossier médical docteur bi lay faj. moo lay defal sa résumé dossier médical yow nga def sa demande manuscrite indi sa photocopie pièce d'identité ah, ak euh, soo ko defee ak sa demande. ñun ñu euh, récupérer dossier bi euh, jox ko euh, assistante sociale bi moom mooy def enquête sociale pour xam ndax yow da ngaa néew doole réellement walla amuloo mbokk bu la jàppale su ko kiiwee transféré ko comité bi statué ci na naka lañ lay jëlee en charge donc noonu la donc c'est vrai que mbas bi am na lu bari lum ñu sonal parce que dañu defoon téléthon 2020 le 21 février 2020 quelques jours après mbas bi euh, commencé mais euh, jël nañu euh, téeméer juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki jigéen gu malade du cancer muy góor ak jigéen ak xale euh, donc jël nañ leen ci seen faj jàppale leen. mu mel ni gratuité boobu peut-être ko tey am na ay limites parce que bu fekkee que ni benn partie bi rek lay jël bu fekkee tey traitement bi dafa war a gën a metti beneen partie boobu noonu jëriñu ko en considération mais loolu moo tax nag euh, ñuy def accent parce que balaa ngay àgg fi nga xam ne ne da nga war a dem deuxième ligne euh, maa ngi ñaan sama mbokku jigéen yi mbokku góor ñi. Euh, askan bi ku yëg dara ci sa yaram doo ko bàyyi mu law parce que soo bàyyee mu law ba nga xam ne ne euh, faw ñu dem ci deuxième ligne bi nga xam ne ne c'est coûteux c'est pas gratuit moo tax ñun ñuy waxtaan ak askan bi di leen di sensibiliser lan mooy cancer lan mooy indi cancer te naka la ñuy def ba moytu am cancer voilà foofu loolu la taxaw sax tey jii nii ki nga xam ni peut-être que dafa nekk feebar boo xam ni dafay nelaw ci nit ki du ko mën a yëg Euh, parfois wala yooyu noonu naka la cancer bi di manifester woo ci lu ëpp. xam nga cancer euh, cancer bu nekk ak ni muy manifester mm. euh, donc cancer yi damay joxe exemple cancer du prostate ah bu nga xam ne ne góor dong lay jàpp dafay indi dem sooy tuur ndox tuur ndox bi di bari ah walla soo demee pour nga ànd ak sa soxna mu am ay jafe-jafe. góor ko amee soo amee ñeent fukki at ak juróom war nga chaque année nga dem seeti docteur seet boobule xëy na moo tax góor ñi duñu dem consultation mooy ne dañ lay defal toucher rectal dañu jël baaxam bi dugal ko sa gannaaw pour euh, seet naka la prostate bi mel euh, su dee cancer yu ween ñun dañuy jàngal jigéen ñi naka la ñuy làmbatu ween euh, làmbatu ween boobule dina tax ne donj boo daj ci sa ween nga mun a dem ñu gëstu ko su fekkee ne ne cancer bunt butitu njurukaay li ñuy ñaan askan bi sama mbokku jigéen yi mooy nit ku nekk ci néegu sëy soo xasee ba am ñaar fukki at ak juróom war nga tàmbali di saytu sa bopp saytu sa bopp boobule danga war nga mun a commencer def benn frottis cervico-vaginal léegi sax kenn waxatu ko cervico-vaginal cervico-utérin la ñuy wax mm-hmm. nga def ko ne serait-ce que une fois dans vie Euh, ñun ñu ngi am ay programme muy euh, euh, dépistage yi ñuy organiser ci former ay sage-femme di dem ci dëkk yi LISCA dem na ci vingt 28 districts sanitaires formé nañu 1300 sages-femmes te association wu sage-femme d'État du Sénégal ñoom itamit ñu ngi lëkkaloog ligue bi pour xeex cancer bi nga xam ne ne moo gën a bari ci Sénégal muy cancer bu buntu butit su njurukaay boobu boobule ñu ngi ci 1937 nouveau cas avec 1312 décès donc jigéen bu ne war nga mun a dem ñu seet la parce que boobu boobule lu tax mu doy waa euh, suy ñëw euh, dafay toog euh, lu yàgg balaay signe di ñëw Euh, donc loolu dépistage donc moo ko mun a mm-hmm. teel a gis euh, soo defee sa dépistage ñu gis ni am nga lésion précancéreuse euh, ñu faj la te doo doo lésion précancéreuse boobule mooy suñ ko fajee doo am cancer mm-hmm. parce que doomu jàngoro mooy joxe le euh, le cancer du col de l'utérus li tubaab yi di ooyee human papillomavirus human papillomavirus boobule su duggee ci yow dina toog fukki at ba fukki at ak juróom balaa muy def lésion précancéreuse lésion précancéreuse boobu su xësee ba nekk ci yow dina toog fukki at balaa muy indi cancer signe boobule euh, mooy cancer bi nga xam ne ne dafa muet balaa muy ngay jigéen rek di ko gis boobule sori na ci moom moo tax ñuy wax jigéen yi ñuy saytu seen bopp parce que su commencé ñëw mooy ne su jëkk euh, ndaw si commencé sëy ak jëkkëram mu commencé di gis deret ñu dem ba ci yàgg mu xëpp deret walla ànd ak ndox bu xasaw boobule cancer bi sori na mm-hmm. donc euh, loolu moo tax ñun sañu cette année suñu thème journée mondiale boobule mooy élimination du cancer du col de l'utérus mun nañ ko am nañu moyen yi faw ñu def ko Sénégal parce que mun nañu d'ici 2030 ñu bañati gis cancer bunt bu titu njurukaay donc mooy nag naka lañ koy defee vaccin bi dugal nañ ko ci programme élargi bi xale yu am juróom-ñeenti at mm. ñu ñàkk leen suñ leen ñàkkee deux doses Euh, euh, mais n'empêche xale yooyu ñu ñàkk foog ñu topp leen parce que HPV euh, yi dafa am cent plus de deux cent types ci deux cent types yooyu le vingt ñaar fukk ñooy joxe mm. cancer u bunt butitu njurukaay te mi ngi commencé soo jigéen bu commencé di lëkkaloo ak góor mm. donc vecteur bi mooy góor bi donc ñi dëkk yi am koom ñoom moo ñàkk nañu xale yu jigéen góor ñi ak xale yu jigéen ñi donc ñun su fekkee nee ne bi biñ ko commencé 2018 ak léegi euh, ñi nga xam ne romb nañu âge bu ñu leen ñaq nañu dem di saytu seen bopp pour ñu suñu gisee lésion précancéreuse ñu faj ko loolu faj bi lu yomb la am na appareil bi nga xam ne ne euh, trente secondes mu détruire sa lésion précancéreuse tax ne ne doo am cancer loolu moo tax euh, ñuy ñaan euh, suñu plaidoyer ren ci journée mondiale bi euh, mooy cancer bi nga xam ne mun nañ ci def dara donc LISCA commencé na ko comment def nañ ci vingt-huit Euh, euh, district sanitaire ay appareil mooy appareil bu jëkk bi bi nga xam ne dafa daan congeler lésion bi muy appareil de cryothérapie gëstu di dem xam-xam di bees ba ñu gis di euh, ñuy wax benn appareil thermo thermocoagulation ba nga xam ne ne diisul dafa ànd ak batri soo demee ci zone bi nga xam ne ne amul courant mun nga fa faj ay jigéen donc loolu moom lay ñaan foo jigéen ñi déggee euh, dépistage nañ ci daw parce que euh, dépistage benn dépistage dans ta vie peut te sauver du cancer. d'accord tey sànq yaa ngi koy wax yaa ngi naan xale yi nga xam ne am nañu juróom-ñeenti at la ñuy commencer di ñàkk ak yooyu mais dañu gis ni sénégalais dafa am lu ñu naan préjugé parce que xale yooyu ñu ñàkk dañaan ñàkk yi mën na am am ay affaires yu ñu ci def tey jii lan ngay wax way jur yi nga xam ne peut-être que. à chaque fois yéen leen di wax ni pour ñu dem di ñàkk xale yi ñu bàyyi leen pour peut-être que mu mun leen prévention la pour suba. Euh, foog naa ne màggu màggum dëkk bi ku ciy mag gis na ne vaccin yi am na solo ci askan bi tey jii gis euh, laago nga xam ne ne poliomyélite daan na fi euh, sonal xale yi variole daan na fi sonal xale yi diphtérie daan na sonal xale yi amatul donc lépp luñ ciy wax yàq xel la. suñu nee vaccin yi dafay tax ne ne xale yi du ñu am doom loolu ay wax la foog naa ne euh, léegi dëkk bi nu mu tëralee jigéen ñi dañuy yéex a sëy parce que dañuy jàng di liggéey bëgg am koom balaa ñuy dugg ci néegu sëy xëy na mooy indi difficulté yooyu le mais vaccin gisuñu vaccin buy tax ne ne jigéen du am doom donc wax yi dafa bari yàq xel yi dafa bari mais vaccin boobu may teg kii parce que man am naa ci expérience parce que man sama thèse c'est sur les facteurs favorisants mm. du cancer du col de l'utérus vaccin bi biñ ko gisee saytu ko testé ko toog nañu ñu ngi ko génnee 1996 95 96 la la ñuy seen xam-xam màcc ne vaccin bi suñ ko vacciné euh, jigéen ñi dinañu cancer bi dina dellu gannaaw ñu toog ba 2006 ñu doog ko commencé jaay kon xam nañu vaccin boobule dina euh, dina tax virus boobu boobule su ñëwee ci sa organisme dafay dooleel sa organisme ba rey euh, virus maladie viral nag dafa nekk li nga xam ne ne amul garab euh, garab yi ñuy wax mooy ne dañuy faj signe d'accompagnement bi maladie viral fokk nga am doole sa yaram am kàttan pour su doomu jàngoro boobu duggee ci sa yaram sa yaram moom mooy euh, euh, li ñuy wax dafa am immunité bi nga xam ne ne mooy rey virus boobule donc euh, li ngeen gis nii ci coronavirus bi c'est un problème d'immunité so organisme su amul kattan su virus bi duggee daf koy néewal donc loolu mooy problème mu maladie virale donc vaccin yi Euh, foog naa ne euh, àddina bi def nañu ay expérience ci ay épidémie yi amoon te yëpp vaccination yi moo tax épidémie yooyu le euh, amatul ay conséquences ci population bi. léegi lan ngay wax jigéen ñi nga xam ne dañu ragal dem hôpital parce que peut-être ñu wax ñu wax leen ni da nga am cancer day yàq seen àddina jigéen ñooñu lan nga leen di wax. waaw xam nga ñun Liska loolu la xam moo tax xam nga sage-femme d'État. jigéen bu xës ba nekk ci néegu sëy daa dem seeti sage-femme daa dem seeti sage pour mu topp la pour seet sa ëmb walla nga dem ci sage pour sa planning familial donc ñun loolu moo tax ñuy capacité sage-femme d'État technique bi nga xam ne ne dañ ko reconnaître sur le plan international l'OMS daf ko valider li ñuy wax inspection visuelle à l'acide acétique et moom la ñuy jàngal sage-femme d'État yooyu la nga xam ne ñoom ci seen euh, euh, soin dinañu jël benn bés bu ñu jagleel saytu cancer donc jigéen ñu dem ñoom dinañ leen mun a saytu jàngal nañ leen naka la ñuy làmbee ween jàng nañu naka la ñuy defee inspection visuelle pour gis lésion précancéreuse léegi li nga xam ne ne am na solo te appareil yooyu am na fi euh, li benn appareil bi ñuy wax chaîne expert Euh, c'est sous-utilisé au Sénégal xam nañ ne suñ ko yokkee ay kit dinañu mun a tester HPV boobule mooy HPV oncogène yi joxe cancer loolu le euh, commencé nañ ko Sénégal ñun lëkkaloon nañu ak ministère de la santé ak CAI pour euh, def nañ ko ci ñeenti zone te pour tester appareil boobule dafay gis HPV bi balaa muy commencé yàq donc loolu soo amee HPV boobu la du ñu xaar sax mu def lésion précancéreuse ñu faj la jigéen ñi nga xam ne ne soo demee seen sage-femme yi dinañ leen seet xool seen ween euh, waxtaan ak ñoom suñ leen waxtaanee xamal na leen ah fii de sa faj foog nga del dem hôpital parce que ñoom ñoo ci gën a xarañ dinañ déjà commencé waxt ak waxtaan ak ñoom cancer nag jarul ragal cancer ban moo jar ragal nga bàyyi ko mu law ci sa yow sa yaram foog naa ne léegi ñu ngi gis ay cancer débutant loolu maa ngi ciy sant yàlla parce que gis ay cancer in au Sénégal alors que dans les années euh, quatre-vingt-seize c'était des ay cancer yi nga xam ne ne surtout cancer bu buntu buntu njurukaay jigéen yi nga xam ne dañu daan bunge rek la ñu daan gis léegi ñu ngi gis cancer yi ñu mun a faj donc kenn warul ragal Euh, te foog naa ne tabu feebar euh, bi dañ ko euh, sénégalais yi commencé nañ ko dindi parce que dañ daan wax ne ku feebar ku am cancer rek dangay ngay dee gis nañu ay nit yi def témoignage nu wa wane nañu ne wér nañu si seen cancer donc te léegi faj bi yomb na parce que ku daan def chimiothérapie deux millions wala six millions sa protocole nga dem ba chimiothérapie boobule gratuit kon loolu sant yàlla kon maa ngi ñaan sama mbokku jigéen yi képp ku am loo yëg ci sa yaram dawal gaaw nga dem kër docteur wala sax soo yëgulee dara sa yaram parce que loolu lay tubaab yi dañ koy wax nee na war nga mën a dem benn yoon ci at bi soo demee benn yoon ci at bi gis sa sage-femme wala sa médecin généraliste euh, ku am gynécologue dem ci sa gynécologue ku amul gynécologue dem ci sa sage ñoom dinañ la mën a saytu ba wax la ne lii wala euh, moo nekk ci yow analyse yi nga war a def foog naa ne Liska mi ngi waxtaan ak askan bi foog naa Octobre léegi foog naa Sénégal bi yëpp xam nañ ko euh, jigéen yi ñoom ñoo ñuy oo ren yi ci mbas bi jigéen yi ñoo doon oote di wax ne est-ce que dinañu organiser bi ci mbas bi ñu organiser ci la ñu ëpp li ñu gis ci jigéen ke yeneen at yi donc loolu la rek mooy ne dal na xel ne Euh, population bi seen wér-gu-yaram mi ngi leen soxal. Mhm. Euh, voilà dañuy wax ni euh, jigéen bu feebaree ko muy jigéen wala muy góor parfois suñu societé dañuy am ñoo xam ne dañuy ni wala di leen daw am na jigéen ñoo xam sax dañuy dem ba dañuy ñu amee yenn cancer yi dañuy dem ba ñàkk seen boroom kër tey stigmatisation boobu noonu lan nga ciy wax pour nit ñi nga xam ne dañuy dut baaraam ñi nga xam ne dañu amee feebari cancer. waaw parce que loolu ngi commencé di wàññeeku. parce que foog naa ni ñuy waxtaan ak askan bi ne cancer du wàlle euh, te prise en charge bi léegi chimio bi nga xam ne ne moo taxoon ñuy beddi jigéen ñi di beddi nit ñi ci biir kër yi parce que beddi boobule euh, dama gëstu naa ci parce que da ngay gis ne ne euh, soo mënulee faj sa jabar da nga koy ne dellul sa kër sa ay mbokk faj la parce que euh, li may wax SMICu Sénégal cinquante six mille la ku ko am war a am luwe euh, kii euh, lekk bëgg nga faj ci sa soxna mu feebar dafa metti donc bedd bi moo matut parce que ñun ay ju foog naa ne au Sénégal quatre vingt quinze pour cent des Sénégalais des musulmans waruñu beddi sa dëkkaale sàkkatumaak sa soxna wala nga beddi sa jëkkër mais pour ñu xam ne ne dalal xel yi cancer du wàlle te cancer soo ko amee teel ko faj da nga ciy génn euh, te ligue bi mu ngi fi nekkal askan bi euh, askan bi euh, ku tant ñu ngi am xaalis dañuy jàppale malade du cancer jàppale malade du cancer yi dañ ni ma waxee woon ku indi sa dossier ñu jàppale la mais dañ lay jàppale ci waxtaanu xel parce que dañu am suñu ay groupe de parole bu ñuy def dernier mardi de chaque mois u malade yi dañuy ñëw malaat yi feebar ànd ak malaat yu wér ak seeni ay mbokk am nañ fi euh, euh, assistante sociale am nañ psychothérapeute bi nga xam ne ne euh, xam-xam dafa màcc ci dalal xel am nañ fi imam ay ancien malade ñu ñëw waxtaan ak ñoom dalal leen wax leen ne feebar bi jarul ragal donc dañu ubbeeku libéré wu ci seen faj parce que soo xasee ba suñ la annoncé sa feebar daf lay jaaxal da ngay ne est-ce que dinaa dund est-ce que dinaa dee mais soo gisee ne am na ay malade yu ci dund yu wér péng donc yow daal dina la def espoir ba nga continuer sa faj mm-hmm. euh, Liska ñu xamee ko ci comme ni nga ko doon wax octobre rose muy chaque année bu mois d'octobre bu jotee mu ñaaxaat jigéen ñi pour ñuy def lu ñu naan sensibilisation daal di ñëw def ay seen test pour mun a xam ndax am nañ ko wal amuñu ko instant bi si jamono ji témbe euh, fan ngeen tollu ci seen i projet à part octobre rose boobu lan ngeen di def pour jigéen ñi. xam nga euh, mbas bi nag dafa nekk li nga xam ne dafa wàññi ci sañu liggéey euh, sañu activité phare te ñëpp xamel ñu ko muy octobre rose parce que activité buy durer un mois la mooy weer bi ñu da jagleel cancer bu ween mais léegi ñun Lisca xam nañ ne. Euh, dañ ci dugal sax cancer bu buntu butitu njurukaay parce que dañu ne suñu génnee biir Dakar nara dem ci région yi foog ñu boole ci cancer bunt buntu butitu njurukaay dañuy def formation dépister euh, ñun en dehors d'octobre dañuy dem am ay activité ci yenn zone yi ci yenn district yi mais ren mbas bi kenn mënul dajale nit ñi kenn mënul dem kenn mënul dikk loolu daf ñu tax ñu daf ñu tënk mais ci mbas bi tamit gën nañu yee ci li doon sañu mbébét euh, sañu mbébét bi mooy am benn maison de vie mooy kër bi ñu jagleel malade cancer parce que malade cancer yi ren ji sonn nañu sonn bi nga xam ne ne bu ñu tëjee région yi bi ñu tëjee fi ñuy euh, ñi ñëwoon mënuñu dellu ñii ñëwul mënuñu ñëw àggali seen faj te su ñu amoon maison de vie boobule euh, malade yi dinañ fa dëkk voilà mel ni message boo xam ni peut-être da koy lancer jëmale ko ci autorité yi. non seulement ci autorité yi mais ci sénégalais yëpp parce que euh, foog naa ne su sénégalais yi suñu jàppee euh, jàppoo jàppale ku nekk jàppale sa euh, sa morom dinañu def li nga xam ne ne état bi sax daf ñuy ñëw fekk si mais sénégalais yi ku am sa dërëm ah mun nga ko def ci ligue sénégalaise contre le cancer mun nga jàppale malade du cancer. Euh, parce que ñun bi ñuy commencer xaaruñu état duñu xool lii nekk fii ñu kii ci ba état ñëw di ñu bunge donc ñun sénégale ñun ñoo war a jëkk taxaw taxaw sañu euh, morom euh, pour xeex li fi nekk ci problème état bi dafay ñëw accompagner yeneen dëkk yi gën a kii ñi gën a yëngu mooy ne c'est la société civile ñoom ñooy def ay levée de fonds pour jàppale sax Euh, santé bi donc euh, ñun maa ngi ñaan képp ku ñu mun a dimbali parce que ñii am doole a bari nañ fi de euh, benn soirée nga génnee vingt millions lu tax duñ ko def ci malaat yi donc yu bari am na fi nañu nañu jàppale lutte contre le cancer. d'accord nañu jàppale lutte contre le cancer ñu daal ci daloon ki nga xam ne moo di docteur Fatma Guenoune nekk benn docteur boo xam ne xam-xamam màcc na muy jàmbaar fakk tëdd. saa su nekk rek di xeex ngir cancer docteur émission bi jeex nañu ñu lay jaajëfal. maa ngi remercier TV Equivox vraiment di le remercier Fatima. ak sa sa sa caméraman yeeg yëpp di leen di remercier remercier askan mi ñu leen di suivre. voilà lii moo nekkoon premier numéro bu njëkk ci question sociale ñu jagleloon ko lépp li nga xam ne dafa jëm ci cancer dalaloon fi ki nga xam moo di docteur Fatma gënul ñu daal di joxe nag dig daje ci beneen émission ci yeneen question sociale xaar leen fu nekk ndax ñoo ngi ñëw.